waaye ba tey ci seen scandale du jour xam nga metre El Hadj Diouf man dama koo bëgg yenn xam ngeen ni man damaa bëgg maître waaye metre war na wax lii Ousmane Sonko maître dangaa bëgg yëngal kër jàmbur gi ah baax na nañ dem déglu maître. est-ce que fan woo Sonko da ko bëgg da ko man comme ki li ko kenn. man dama bëgg doomu aadama. yàlla mu fonk doomu aadama. non yow tax. parce loo tàmbali jeexalee ko Sonko. voilà <laughs> sama turandoo. ndeysaan. dégg sama xarit bi am na ñetteel ci li ma dégg taay. kan la sama xarit bi. <laughs> ah <laughs> dégg naa dégg. mu dégg am mu dégg avance moom it day non amul heure nag ay man maître waaye yéen kii maître El Hadj Diouf la nee na mu bamtuwaat ko nee na xaritam bi Sonko nee na moom Sonko xaritam la maître maître li nga fi waxal Sonko yëpp maître li nga fi waxal Sonko yëpp maître li nga yekk Sonko yëpp maître tey nga toog ah amatul valeur nag ah nee na Sonko xaritam la te njortu na ni Sonko ngi waaj a takk ñaareel Sonko ngi waaj a takk ñaareel waaye maître war na wax lii Sonko ba pare nag ni xaritam la ay man maître <laughs> Sonko am nga xarit bu bees nag ah Sonko mën na parce que parce que Sonko Macky dafa bëgg kii euh, nu mu tuddati ay man Macky man Macky nag xala may juum di wax waxu Macky Sonko Sonko xew tey Sonko xew bàyyi may wax waxu sunko Macky da ngay xaar dinaa ñëw si yow mane Euh, maître El Hadj Diouf nee na Sonko xaritam la te nee naa leen maître El yàlla dafa am lu mu ko may mooy que waa Sonko dañ koo bëgg ak lu mu munti demee nag dafa bëgg waa Sonko waa Sonko bëgg ko léegi nag à tout moment à tout moment ndax jommi amul heure à tout moment metre El mën na ànd ak Diomaye fay à tout moment ab ah, bu mu leen bett so Sonko xaritam la te Sonkoy Diomaye Diomaye Sonko. à tout mën na ànd ak Diomaye ay man maître El Hadji waaye maître mi nit la gis nga nag gis nga mbiru Sonko bu amul blessé dina am mooy moor mbirum Sonko ci boppam moo doy waar ah maître maître nga jënd galaas nag <laughs> déedéet mënul ne mënul déedéet déedéet loolu xel nguy loolu xel du ko nangu billaay wallaay du duñ ko nangu mm, maître guerre guerre la rek gasta gasta bul jënd glace gasta gasta rek bul jënd glace bul jënd glace maître gasta gasta Sonko bàyyi na gasta gasta mais yow bul bay mais yow muy jënd glace non di neexal nan sama xarit bi tey waaj tak takk ñaari ñettal maître génn si yi nga ne ñaari jéegam yi dañ ko nam ngay sulli ay sulli ñettal wa maître mi luta bugul bëggul jàmm jadi, jadi jadi. Jangan tahu. que Dieu, il vit, il voit,